ورحمة الله تعالى وبركاته أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة السهائر ما كبائر ومن دمائر هافر له كل ما تقدمه وما تأخر وما بينهما فهمني الهلم وزدني حلما وعملا وأدبا وفهما ربي لكشف علوما نافع وجه الخيات من شقاء إيمانها اكشف لي الأسرار والحوامد يا خير من كشف سرا حامدا لجمع جميع ما تفرح لدى حتي من الخير وشفي حلدا لخط لدى تفكر أعظم يا ربي بكن والتحسما حلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي وجه فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب ولزواهر ابي مع الهيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وهد المتقون برحمتك يا أرحم الراحمين ñoo نيو nuyu جولي دي seetaan yëpp di ziar mbokki télé bi ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu bokkal plateau bi soxna Eva nga xamante ni say soppe yu yàgg lañ di la suivre lu bare bare bare bare di wax ni nag émission bi moom émission euh, euh, planète bi yëpp la ndax ñëpp a koy seetaan ndax njariñu neen la di jiital ci nuyoo bi nag Serigne Mountakha Bachir mi nga xamante ne nii mooy sama bunt ci Serigne Touba mhm. di ñaan yàlla dëgëral ko mboolem xalif généraux yëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu jullit yi di amiin ba kàddu gi dellu si waat. amiin man li ma ci jaaxal rek waa ji ñu toogal ndax moom fu ko neex lay fëlee kon mbokk mbokk yi tey dañuy ñëw ci li ci li ci li ci gisaane defe naa noonu la li ci gisaane. da ngay dem seetlu ñu wax la ay mbir léeg nag ñu mel ni Awa dañuy dem seetlu ñu wax leen ay mbir ñu foog ne àdduna tukki na ak li ci biir yépp macha allah. Mm. moom la ñuy waxtaanee pour jeexal la nga xam ne mooy woon te mu maraboutage bu ma juumu leen looy baal. Mm-hmm. bisimilah. jaajëf Eva gisaane moom fii lañ ko fekk ñii tuddee ko seet ñii naan voye voyance ñii naan gisaane mm. ñii naan dama lay fanaanoo am na ndaw su gi din tegoon keroog ah, nga xam ne nee na moom da doon day sëy bu xaaba bi waaye day dégg bu bu xaaba bi di wax naan ko naan non affaire bi dinaa la fanaanoo waaye day nelaw ba midi ñu ci bari dañ lay naan dañ lay fanaanoo mais fanaanoowu la mm. sëy yu baree baree bari yuy tas jigéen ñi mm. seetkat yee ko tas mm-hmm. seet nag am na Euh, ak les saharit yo mhm. yoy yep ñu dinañ ko laaj señ bi mhm. laaj yan façon set mo am mhm. yan mo ci dagan ak daganul yi ci l'islam nangu ak yi ci agian nanguwul ak yan façon set ci boppam gisaane tàmbali linki bi laaj laajte bi waaw liñ ci indi laaj boobu mom boo ko laajul won sax dina la neexal ngir nga laaj mako ndax euh, laaj bu am solo la bo xamanteni ni dañ ko wara leral ndax xam-xam fi ne limi bari bari bari ñaar la bi nga xamante ne nii yu la ak bi nga xamante ne nii am xel la bi am xel nag mooy tax menuisier bi mën a defar lal caméraman bi mën a jëfandikoo caméraam technicien bi mën a jëfandikoo am xelam ngir mën a liggéey hmm. bokkut ak nag wax yu bi nga xamante ni yàlla moom moo koy jagleel yonent yi ci wax yu boobu nag daa am beneen branche boo xamante ne nii moom lañ naan ilham ilhamul ilaahiya ak ilhamu seytaan ilhamu ilahiya mooy xam-xam bi nga xamante ni yàlla daf koo jagleel gaa yu baax yi ak borom xam-xam yu sell yi ilhamu seytaan nag mooy bi nga xamante ne nii maanaam borom kat yi nekk ci bi nga xamante ne nii mooy zulmaani yu te lislaam ko boobu maanaam seytaane da leen ci nekk di leen di leen ci di leen ci di leen ci di leen ci wan yu bari mm-hmm. léegi nag seet yooyu dafa bari waaye am na boo xamante ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale mooy bi nga xamante ne nii nit ki bu fekkee ni day dugg ci dara mu julli ñaari ràkka bu waxee nag ni yàlla maa ngi ñaan lii nga xamante ne maa ngi ciy dugg bu fekkee baax na ci man baax ci sama diine yàlla nag ma ko yombalal mhm. bu fekkee ni baaxul ci man baaxul ci sama diine yàlla nag ma tànnal lu ko gën mhm. nga daal di dugg ci mbir mooma bu fekkee ni baax na ci yow sunu borom dina ko dina na ko leeralal bu fekkee ni gënul ci yow sunu borom dana la tànnal leneen léegi nag mu bari xam-xam bi nga xamante ne nii boo demee ci man baxu usulul raml ben téré la bo xamanteni day jàngale wàllu ram waaw day jàngale ram lo kon iqra bismi rabbikal allazi khalaq khalaqal insana min alaq iqra iqra wa rabbukal akram allazi allama bil khalam moy xam-xamu kon xam-xamu gisane day daal di génn fofu allama bil khalam nga xamanteni dalay xam xama ci xam-xamu bind allamal insaanu ma lam yahlam xamal doomu adama bi nak lu mu xamul léegi nag loolu boo ko asliya bi day dem ba ci yonent yàlla Idris nga xamanteni ki nga xamanteni yorna yor bi asliya bu wér bi mooy yoon bi wa yon bi yon bu wir bi nga xamanteni jang nako ko ba man ko mhm. lum la ci wax du deñ may bi wax ramlu mhm. am na ci benen bo xamanteni ni hilmul kaff la manam mhm. ci loxo la nit ki nga ñew talal ko so loxo mu xol ko xam lan moy sa jafé aduna àdduna xam lan mo koy dindi xam lan moy say tawat yoy yep ci loxo la koy xamé am na ñoo xamante ni ci sa jë la xool. macha bu ñu xoolee sa jë dinañ ci xam lu baree baree baree bari loo xamante ne ni xamoo lan moo tax ñu xam ko ak fu ñu ko xamee. loolu ci wàllu seet la. waaye nag daa am beneen boo xamante ni nii seetu xisaab la ndax asamsu wal xamaru tajri xusbaan. maanaam jant bi ak weer bi day dox ci calcul. alxuraan moo ko wax léegi nag calcul boobu xilmul xisaab boobu. fi ne tey jii nit ki mi ngi bëgg a jëflanteeg ndoy baan wala mu bëgg a jëflanteeg yow wala mu bëgg koo takk soxna wala mu bëgg jël chauffeur wala nangam wala nangam mën naa jël turu chauffeur ba exemple jël turam moom calculer ko. ah da koy adat. waaw boo ko adatee. Mhm. nga yokk ci fukk ak juróom benn muy 16. Mhm. wala nga yokk ci 7. léegi nag boo ci yokkee loolu nga koy wàññi par 9. Mhm. bu desee benn. bu dee jigéen la boo xamante ni yéen a ngi war a sëy mhm. du la yokk du la wàññi su desee benn bu desee benn maanaam boo jëlee sa tur comme ku tudd Mouhamad mhm. nga adat ko mhm. yokk ci cinquante trois boo jëlee Mouhamad diw maanaam nga jël Mouhamad Ndiaye nga adat ko jël Fatimatu Ndiaye nga adat ko yokk ci seize fukk ak juróom benn wala nga yokk ci sept di ko wàcce par neuf wàcce ko par neuf wàcce ko par neuf bu desee benn dula yok dula du la wàññi mhm. bu déssé ñaar ngoro gi day jafe wai, sey bi mom bo ci duggé doto jéxal dara ngoro gi way ngoro gi day du neex wa du neex manam day jafe kon ngoro mën na jafe té sey jafe nga dugg ci mu neex waaw mu mu mu neex bu dé ñett la manam waji lu mu am am am alal wala ndaw ci lu mu am am am alal mhm. alal joji dinañ dem ba ko ngom Adja Mami li nee neena nga sétal ko moma ko message de waaw neena nan ko sétal en direct ndax lolu lolu dafa dafa am nga xamante ni nit ki boo nga xoolee turam mu des ñett yooyu mhm. léeg-léeg nga dégg nit ki dugg na ci ah moom de daa yoroon alal ju bari léegi bi mu duggee ci bi rek ah, lool loola dem ndax loola dafa am bu desee ñeent mooy sëy boo xamante ni li ci ëpp day bari ay tawat wala su soo ci duggee nag mu des ñett waaw te da nga bëgg ndaw si tey gars yi pousse na la il faut nga ko il faut nga takk léegi nooy léegi nag am na ci yeneen ñaan yoo xamante ne nii mën nga koo def ba seen i mbir seen i seen i seen i mbir dëppoo yamxullaaha maa yashaa'u wa yusabbitu yàlla léeg-léeg mu bind ci nit ki ne nit ki war naa accidenté nit ki war naa feebar nit ki nangam war na koo jot mu xëy saraxe benn mbiskit suñu borom fegal ko loola. allahu ndax sëñ Tuubaa nee na sarax benn doomu mbiskit li muy dindi ci doomu aadama gaana moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a tuuti maanaam nga xamante ni nit ki mën naa am juróom-ñaar fukki balaa yoo xamante ne waroon naa wàcc ci moom mm-hmm. mu jël benn doomu miskin mu saraxe ko loola de kon bu desee ñeent mm-hmm. mooy nit ki nga xamante ne nii feebar da leen di yomb maanaam tey kiy wér suba kiy wér waaw bu desee juróom sëy bi am na barke mm-hmm. am na njaboot bu desee juróom benn mooy sëy boo xamante ne day bari coow ca yàlla fu ñu toll dañuy coowoo dañ leen di àtte guddi àtte bëccëg waaye dañuy ànd rek. te mën na ñoo bañ a tas. te mën na ñoo a tas bari na fii sëy yoo xamante ne coow guddi coow bëccëg léegi nag bu desee juróom-ñaar moo ci gën mooy njaboot barke wërsëg ak gudd fan. Hmm. juróom ak deux bi daanaka benn la ngoro gay dëgër waaye waaye sëy bi day neex te day am wërsëg. juróom-ñeent nag mooy bi nga xamante ne moo ci gën a garaaw moom tënj tas wala tàqali Ah. waaw te ñu tas wala. wala tàqali ko mu doon loolu xam-xam bu wér la moom tamit ba tey jii ci ci wàllu xisaab. Mhm. nga xamante ni nit ki mën naa xam sarax bi nga xam ni su ko defee rek ay mbiram dox maanaam mooy nga jël sa tur. Mhm. ak sa turu yaay bu dee góor dañ ciy yokk ibnu. Mhm. muy 53 bu dee jigéen nga yokk ci 452 muy bintu comme faati Fatimatu bintu mus bintu euh, Zeynabu Muhammadu bintu Fatima ibnu Fatima. Hmm. léegi nga addat ko soo ko addadee nga yokk ci 158. mu jàpp allahu muhammadu ba pare jàpp lillahi nañ ma boo ko calculer cent cinquante huit lay doon. kon kon di ngeen dem ba euh, xaw na jege ni tubaab yi di liggéeyee. parce que ñoom ci wàlli astrologie. dañuy def ci romance yi xool ci mm-hmm. loxo bi defe naa noonu lañ koy waxee. Mm-hmm. itam am ñoo xam ne dañuy xool sa sa jë. di la wax euh, damay laajte euh, loo xam ni. Mm-hmm. ka nga xam ni. moom du sëriñ. ka nga xam ni. demul jàng gëstu xam-xam boobu. Mhm. te bu la xoolee. Mhm. wax la li nga xam ni. Mhm. moo moo nekk ak mooy am. macha allah lu lu kooku kan la. loolu fa laa jëm. waaw kañ fa laa jëm. ndax ittaqullaa wa yuallimukumullaa nit ki day ragal yàlla ragal yàlla ragal yàlla ba yàlla di ko xamal loolu mooy xilmu xam-xam bi nga xamante ne ni kashfu la kashfu la tudd nit ki léegi day xool ci diw xam ni am na xaalis ci poosam xam ni cëram bii moo mujjee mooy yàlla ci moom walla feebar bii kat moo ko dal mu wax ko ko loolu dara du ci def te sekkunu dara mu ne ko sa feebar bi nangam ak nangam ak nangam loola day loola moom lu wér a wér la loolu nag ñi nga xamante ne yàlla moo wax ci alxuraan ni ku ragal yàlla yàlla xam la ko est-ce que foofa dinaa ci profité ndax listixaar mhm. Serigne Moussa Ka daa defaloon marsiya ki ñuy wax Cheikh Anta Mbacké ni ko gis naa la ci wàllu ci wàllu raw mooy wàllu ndaw bi nga nekkee bi nga nekkee ndaw hmm. may def listixaar ma gis la nga siyaare ji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono ja nga siyaare ji rasulillahi xool naa ne sëñ Tuubaa nekkatul ci dunia yàlla wan léegi bi sëñ bi demee 27 ci boor yooyu 28 ci la sëñ sëñ sixanta euh, dem dem dem màkka hmm. nga xamante ne loolu listixaar wane na ko dëgg ci la nag yàlla maye ma maanaam maye ñoo xamante ne nii ci turu yàlla la ñuy téye xam yàlla fi ne hmm. bo waxe turu yàlla ñu ni 99 allo alaykum ndax amul ku ku nek ci ci ligne bi wa alaykum salaam wa rahmatullah soxna ci ñong lay siara di la nuyu man la Mahmouda Mbaye est-ce que bismillah, bismillah bisimila Mbaye waaw soxna ci tay ji la yàlla dogal ma jëkka wote ci téléphone ci euh, euh, ki studio bi Mm-hmm. waaw. waaye sang bii nga dalal dafa daw sama yaram. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. Uh, wax dëgg yàlla li muy wax ci xam-xam la ko teg tey ci ragal yàlla la ko teg tey ku uh, gëm naa ne ku yàlla baaxe la ndax ay firnde yu leer lañ ci am ci jëmmam yi ñu toog mosuma koo gis sala tey jii la jiitu. waaye mosuma gis ci débat kenn ba mu jaral ma woote waaye jëmm ji jaral na ma woote te gëm naa ni wax du hasard lu ndax lépp ci xam-xam la ko teg tey nii mu ko waxee noonu la amee macha allah alhamdulilah dama koy ñaanal yàlla suñu borom bi yàlla bàyyi ko ak xelam seet euh, may ko ijaaba saadatu daarayni wa umran tawila tabarakallah masha allah jërëjëf mbay jërëjëf jërëjëf mbay xam nga lii la Awa Diop di wax ne ndeysaan nit a nga toog di wax booba ka bokk ak moom dimension ngi toog di ko seetaan hmm. yaa ngi tàmmali benn wax boo xam ne laataa ngay daanal ka ka lay seetaan daanal na wax ji hmm. moo tax ñu ngee nuyu bu baax boroom xam-xam yi tedd yi nga xam ne ñoo hmm. ngi jàkkaarloog ñun di sàkku ci ñoom ñaan bu baax a baax a baax a baax tabaarakàllah sàmb bisimila waaw léegi dañoo nekkoon fu am solo nga xamante ni fi ne nit ki nit ku nekk rek war nga ko meuna defal ci sa bop mhm. bo xamé sa tour ni nga koy bindee asliya bi ci arab. Mhm. nga adat ko adat sa tour yaay. waaw budé dee nga yok ci 53. budé dee budé jigen mu yok ci 452. Mhm. ba pare yokkaat ci 158 diko diko wañi par 12. diko wañi par 12 waaw. lélé nak nit ñoo wax la aajoom nga xol ko fofu rek ni ko dawal saraxe sangam du jar sax nga koy ñaanal du nga koy ñaanal mu dem loola sotti. waaw bu desee benn kooku moom daa yor jinne ju koy yàqal alalam ak njabootam. nga xamante jinne waaw saa su nekk rek ci ay jafe-jafe yu tar lay nekk. Uh-huh. jafe-jafe yooyu li koy dindi. 249 doomu guro lay jënd saraxe ko mu mu loola dañ. ndax mën na maa toog dégg ne fu mu ne nii 249. waaw doomu guro te dara xew. waaw déedéet bu fekkee ni loola sa sarax la ndax maanaam bunt bu ne. ak mm. sarax ba mu war a génne. dégg naa la. bu dee daa des deux. waaw mooy ki nga xamante ne ni mbirum yëpp liggéey nekkul ci moom cata ko yàqal. waaw. day jënd 29 nen ñaari ginaar mu saraxe ko. ku cat nar yàqal ku ne. mën naa génne vingt neuf nen. te fekk ni nga génn nga bokk ci numéro deux boobu. ah yëf yi du noonu de. du dalay da ngay xoolal ko ba nga maanaam da ngay jël sa tur. dégg naa sa tur yaay. waa yokk ci 53 bu dee góor. waaw bu dee jigéen nga yokk ci 452. waaw yokkaat ci 158 fële. yokkaat ci gu fële bu jigéen bi 158. léegi nag nga koy moyen par 12. bu desee 1 jinnee lay yàqal sa alal mooy yàq sa njaboot mooy tax doo wér bu dee 2. Hmm. lamine mo la japp lo dugg mo yàqu lamine moy japp sa mbir hmm budé 3 koku mom da yor rabbi cosaan rabbi cosaan waaw mom bay lay jënd mu saraxé ko bay wu xonk ah rabbi cosaan moy xam bi yeeg manam bay lay jënd rek mu saraxé ko moy moy sarax bi nga xamante bu ko défé hmm. mu koy def 6 mois yu né wala at mu né suñu borom dana ko dimbali ba ay mbiram dana dox budé 4 nak ñent moy ko koo ni hmm. amna rab waye rab yu jullit la day faral di wir di febar léegi nag moom juróom-ñaari mètre percale lay jënd benn kurus paquetu sondeel mbiskit ak tàndarma jël ko saraxe ko bu ko dee def tamit moom it ay mbiram day dox bu dee cinq mooy jigéen ju mën góor hmm? bikkurun lay doon maanaam jigéen ju mën góor bu dee góor ci góor ci biir góor ñi lay doon vingt cinq mètre percale ak juróomi dërëm moo nekk saraxam bu dee juróom benn mooy koo xamante ne ni warul toog benn place ndax liggéeyam ci tànkam la ne mooy koo xam bu toogee du am dara waaye buy dox di am dara

ni koy leerale nii. waaw gars yi suñu demee ci plateau yi duñ ko leerale nii. tout le temps tout le temps dinañ am benn galgal buñ ci gal naan noo du egg. dañ may pirate ak yooyu. waaw te souvent dama lay seetaan gis ngay. Hmm. maye ay affaire waaw maanaam nga naan nga naan askan wi may naan. maanaam ca njalbeen li ñu taamu woon ci borom xam-xam sax. Hmm. mooy xam-xam bi na nga ko na nga ko naka la. waaw maanaam daa am loo xamante ne nii bu fekkee ni dama ni soldaatu sëñ Touba laa man. radiyallahu anhu gis sëñ Touba li mu bind ci ay xasida du jeex wax ni sama xasida yi day yeggali nit ci yàlla te du jar muy dugg xalwa est-ce que sama xasida yi mbooleem lu nit di def bëgg ca njariñ mm. lii moo ci ëpp njariñ sama xasida yi nangam sama xasida yi nangam te denc ko joxu ko njabootam mm. da koo jël tasaari ko ngir jullit yëpp kooko boo dee roy ci moom war ngaa mën a li nga am ci xam-xam nga di ko joxe war ngaa mën a laa bi boo xoolee Serigne Souhaïbou mm-hmm. bind na téere maa ngi leen di ngi lay ziara bu baax sàmb nga baal nu àq. naka coono yi. sant yàlla. Euh, man la Ismaïla maa ngi dëkk Thiès Ismaïla Mbow. Ismaël ñu ngi lay nuyu Ngom. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. waaw. Mm-hmm. dama bëggoon sama damaa damaa seetaan de gis ko ngeen invité koo xamante ne maanaam ku ma xam la tamit muy kenn ci man mi Mouhamed Sam moom toog. dëgg la ngi lay dégg. waaw mu doonoon koo xamante ni yàgg nañoo ànd. ba ñuy gone ba léegi. Mhm, ndeysaan waaye li li nekk ci moom suñu borom ko def ci moom. Mhm. macha ko ñaanal yàlla yàlla wéral cër yi te xam naa xel ni ñun ba ñuy ba ñuy gone ba léegi. ñun xamoon nañu lii lii nekk ci moom la ndax ñun ba ñuy ba ñuy gone lii danga daan di ko waxee. kon donc bu demee tey ba nekk ci TFM tey ji di def lii tey ñun duñu bett. macha contentement li ciy àndal mhm. ak mbégte. te di ko ñaanal yàlla. te xam nañ ni li muy wax ni lu wér la lu mu mën la te lu ko suñu borom jagleel la. waaw donc di la ñaanal yàlla. amiin amiin amiin. yàlla yokk ko. amiin amiin. waaw mais nga xam ne dañuy dem. seet ñu naan la waaw sa sa wujju ba ca kër gaala liggéey. Mm-hmm. sa wut sa njëkke baale liggéey mhm. sa njëkke bilaa liggéey takk la mhm. maanaam seet yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci tas ay kër mhm. te ñu ngi ci am ay millions nit ñi dafa mel ni ñi leen di nax la ñu gën a gëm ñi lañ bëgg ñaata ngay seete junni ñaata ngay seete ñaari junni bala ñu laa gis di nga fa def ay une heure de temps deux heures temps seetkat yi façon yooyu nekk ci dëkk bi rek waaw maanaam seet goo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi ciy def loo xam ne day tax nit ki juwaloo maanaam foofa ab fen dafa am muy wax lu du dëgg est léegi fen woowu sëñ Tuubaa dafa wax ni nit ki bu waxee dëgg. nee na dëgg gi wax jooju dañ koy malaayika yi dañ koy accord e- e- escorté ba xaras. nee na ñu di ko ñaanal di ko di ko taggatal ba dalal ko waaye nee na bu waxee lu dul dëgg nee na loola mooy dem mooy demal boppam. kenn du ko yóbbu ba yéeg ba àgg nee na ñu di ko móolu lu mu romb mu di ko móolu ba bis pénc. kon léegi yow mi nga xamante ne yaa ngi ci sa ah ku xees kii def na la nangam. ku ñuul kii def na la nangam te fekk ni ka ca kër ga ku xees la. te mosulaa def dara wax nga loo xamante ne nii bu ëllëgee bala ngay jéggi siraat di nga ko lijjanti ak kooku. te yàlla day taxaw di leen seetaat. te nag lépp lu la yàlla maanaam lépp lu ilhaamu seytaan man. nga xamante ne seetu seytaan mën na ko. muy yenn yi nga xamante ne ay béjjën ak ay xaaw ak xeet yooyu. lu mu mën rek lislaam man indil na la lu ko man lu mën loolee. lu mën loolee. macha allah. ndax bii lu mu nuru nuru lu dara. Mm-hmm. ak lépp lu mu la mën a indil. Mm-hmm. indilu la dara. mais dañ naan bee bi borom bi d'accord man. waaw ndax fi ne nii xam nga xam nga xam nga xam nga fi ne. dañ naan a gaaw xam nga alxuraan mooy dëgg. Uh-huh. mais am na fi ne ñu ko weddi. fi li baax lu mu baax baax baax baax am na ñoo xamante ne gëmuñu ko weddi nañ ko. astafurlah dañ ko weddi fi ne nii liy yóbbu nit àjjana. waaw moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara. liy yóbbu nit sawara moo gën a jafe téeméeri junni yoon mm-hmm. tey jii yaa ngi xëy. Mm. war a war a dem ca baar ba naan sàngara. di exemple boo amee sa oto di nga ci def essence. wala nga jël taxi. boo àggee di nga jënd. Mm. lépp danga koy fay. nga naan ba pare yaa ngi ci ay bàkkaar ba delluwaat sa kër ci bàkkaar nga ne waaw léegi na yow boo tàmbalee bëgg a julli waaw mbaa nga bëgg a woor wala nga def ah, ah, ah, génn asaka wala nga aj màkk yéene gi ngay yéene rek di def lu baax ci lañ lay tàmbalee bindal aw yiw innamal ahmaalu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa ñu lay bindal aw yiw boo defee jëf ji ñu bindal la ay yiw di la bindal ay yiw ba keroog ngay jëf ji di jeex loolu ko dàq maanaam njort lu rafet rek. njort fas yéene ko rek. waaw yàlla commencé na noté. ay commencé commencé na koo noté te jëfagoo ko. waaw mais seetkat yi dañ naan seet dafa araam. macha allah seet xaw ma soo jullee ñee fukki guddi xaw ma lan. bépp boo xam ne zulmaan yu la. maanaam lu lëndëm la lu seytaane la. mooy ci yan mooy bi nga xamante ne exemple lu mel ni ay petaaw. waaw ay biddiw ay ay ay béjjën. ay ay di xool ci ay ay ay xamb. Mm-hmm. xeet yooyu. Mm-hmm. nga xamante ne nii seytaane mooy ñëw di la wax képp koo xamante ni yaa ngi koy def. jàng naa ci téere ñu ne di nga toog ñeent fukki guddi yoo xam ne boo jaamoo yàlla du ko nangu tey jigéen ñi boobu lañ gën a bëgg nag waaw léegi nag maanaam maanaam fi mu ne nii da xool ni yoonu seytaane moo ëpp ñëpp mënees nañ ko fi ne boo fi ne da ngay teg mënees nañ koo xalaat. waaw fi ne da koy mën a xalaat fi ne boo tegoon nii alxuraan. waaw teg nii benn magazine boo xamante ne nii jigéen ju sàgganu nekk na ci. ñu bari bu ñu ñëwee jigéen bu jigéen bu sàgganu bi la ñuy jël. di ko di ko liir. waaw ndax dëgg la. Uh-huh. dëgg dëgg dëgg dafa dafa dafa rombul noonu. dëgg dëgg mais seet nag lu ama am la. lu ama am la am na ñoo xamante ne nii du ñu yor petaw du ñu jël kurus du ñu def dara dañu naan la jàkk xam li nekk ci yow. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi bisimilah. waaw salaamaaleykum na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi leen di ziar bu baax Eva ñu ngi leen di delloo ziara. Eh, ñun ñoo leen di xam waaye yéen xëy na du ngeen ñu xam. <laughs> dëgg la dëgg la. Eh, ndax eh, professeur professeur ay élèves am ñoo koy xàmmee. Hmm. ndeysaan waaye moom xëy na mën naa bañ a xàmmee. Eh, mbooleem ñi muy jàngal. est-ce que est euh, waaw man te pour la première fois mooy dugg ci télé. TFM mhm. euh, moom rek laa suivre nag ak euh, bien sûr yeneen télé. sant yàlla. waaye dama dégg mbokk mi xaw ma ko sax yàlla xam na ko du ay loolu ñuy wax diil xaw ma. Mhm. <laughs> léeg nga gis ko dugg ci émission. Mhm. woo ñu bari euh, naan leen naan euh, pour buñ bu duggee ñu woo ko daal. waaw waaw waaw waaw. waaw man kii yàlla xam na ne xaw ma. dëgg la ndeysaan. waaw waaye xam-xam. Mm-hmm. bi muy wax. Mm-hmm. lillaahi najm boobu mm-hmm. muy wax noonu. maanaam ci laa ko fekk dama ko dégg rek xam ne mi ngi ci. yoon wér-wér mi ngi ci yoon. Euh, man taalibe sëñ Touba la taalibe docteur. Xaadim Mbacke radiyallahu anhu sëñ Xaadim Mbacke docteur mooy sama sëriñ. ndeysaan ndeysaan. léegi nag euh, bi ma ko déggee. Mhm. Euh, ma xam ne xam-xam lay wax bu wér. Mhm. moo tax ma ne naa ci participer. dëgg la. c'est-à-dire ku mel ni kii li ñuy wax ci wàllu seet ak xam-xam ak ilmul asraar mooy xam-xamu secret baatin. Mhm. mënees na ko ci déglu. est-ce ah, ndax ñun li ñuy taalibi rek la ñu waaye xam nañ ne macha allah ah, borom xam-xam la bu wér a wér. ngi lay nuyu ñu ma bàyyi la nga saafoon teg moom. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw euh, salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa tur bi naka la. sëñ Moustapha Samb laa tudd. sëñ Moustapha Samb waaw man Youssou Guèye. Youssou Guèye Guèye Guèye Guèye. Euh, dinaa jël sa numéro après. incha allah incha allah ah, waaw kontaan naa lool. vraiment ñun ñoo gën kontaan ñoo gën a kontaan. tey la. <coughs> est-ce que ñuy seet ñëpp. Mm-hmm. borom xam borom xam-xam day sopp boroom xam-xam. ndax du noppee jàng ak gëstu. dañuy gis seetkat yoo xam. Mhm. waroo ñu wax ci ci ci sëriñu jigéen yi dëkk bi daa bari léegi dakk surtout Dakar. sëriñu jigéen dafa bari ay buxaabu yu jigéen dara xamuñu ko nag dara. ne woon nga ma ku ci sëyam tas ñetti yoon rek day daa dee mooy seetkat yi seetkat yi ba nga boole ñu ci xam bare bare dañuy dema dema dema dem <laughs> say tas say tas ba dem ba xamu li ñuy def kenn noomatu leen. ñun ñu jékki-jékki rek gént ni dama jënd jéem a indil ay ay ay ay pétaaw. nekk seen kar nit ñi commencé di leen rang. ñu daal di lëkkaloo euh, ku mel ne Babacar ma ca suuf. Mm. Euh, lëkkaloo Babacar bee mel Babacar nekk fële ca Pikine yorum mbaaram. Eh, man oh. ko ay xam naa ko tudd Babacar. Oh. sëriñ bu baax la. Mm. ginnaaw lii ma la seetal gis naa ko. Oh. baal ma yabal la soo jógee di dem seeti Babacar mu woo Babacar. Mm. ni ko miyaa ngi ñëw TFM lay liggéey. mi yaa Ndour men yaayam nii la tudd papaam nii la tudd mm. di woy borom këram mm. lii mooy problème am Babacar toog di xaar waaw nga ñëw mi ni tëll eh? mun ko yow mi nga tudd mm. nii nga commencé wax a wax a wax mi jàpp bopp bi tekk Babacar ak ndaw soosu ñooy liggéey dof loola lekk sa xaalis dem sa yoon mais yooyu noonu ak ñooñu ñi ngi yàq seen liggéey waaw maanaam fi mu ne nii métier boo gis àdduna rek am na ku cee def loo xamante ni nii bokk kenn sant ko wallaay wallaay sàmm waaye fi ne fi ne xam-xam bi nga xamante ni yow xam nga ko yow fi ne kon li ma fi leeral nii ci wàllu ci wàllu uh, kii yi nii hmm. képp koo xamante ni yaa xam boo ci jël bu la neex nga di ko hmm. def hmm. maanaam lépp luy sa jafe-jafe àdduna dana dana faju mais nag léeg-léeg nit ki def bàkkaar ñu jiiñ ko cet wala ñu jiiñ ko liggéey te fekk ni bakkar bi mo tëj ay mbir. allahu akbar manam da nga def def jo xamne ne. waaw nga ca bakkar waaw kon bakkar day fekk ji ak bakkar mo gëna nga amal ak nit ki. waaw mu yak sa mbir. mu yak mu yak sey mbir tëj sey mbir lol laal mu dëgër buntu bo dem nit tëj ko. fo dem dara du dox. léegi nak ngay wër dañ ma liggéey dañ ma ciatu te fekk ni bakkar bobu mom nga def motax motax moo tax deñul léegi bu amé waaw tuub rek moko ko dindi nooy tuubee ak nooy bàkkaar bi la ah nooy xamee ni bàkkaar bi la ngay def istighfar ah. uh-huh. yàlla moo wax xanaa xamoo ne astaghfirullah mooy benn médicament ci garab yi boo xam ne ah. yàlla kese moo wax li muy jariñ mm-hmm. amul amul kenn ku la mën a wax naan la lii lay jariñ lee lay jariñ ndax nee na fa xultu istaghfiru rabbakum innahu kaana affaaran mm. yursilu sama aleykum bi daraaran wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaat wa yaj'al lakum anhaaran nee bu ngeen ma de jéggulu man yalla ma leen di jéggal duma ci yam de dama leen di may taw fu mu tollu di taw dekk bi naat ma may leen aljana may leen ay dekh loolu ba pare may leen ay doom loolu istixfaar moo ko man macha allah xam nga nag yóbbanti àq la ñoom papa an d' accord na nag yow. jërëjëf ñoom oustaz Mara Fall. Hmm. Amad Fall Dieng. ah ñu d' accord ak yow daal macha allah ba ba bare nañu. léegi nag bare nañu ginnaaw seet seet ñi ñoom Eva Tra mun ñoo bañ a seetlu. Hmm. waaw mu tey des fois mu ñëw fii ni ma seetal. Hmm. Eh, mami ñoom ñoo ñooñu mënuñoo bañ a seetlu. léegi man awa ji léegi ñoom seet. man de léegi il ak ñoom awa Pilo. aada Elodie. aada bu ñoom ñëpp maa leen seetal Fall maa ci sëynu sëriñ tey damay dem ca Soda Diagne sax fële ca Jadda waaw moom itam sama njëkke bu baax boobu defar na ay parfum élodie yu neex mi ngi fekk sama oto dégg nga <laughs> macha allah léegi nag ngay may askan wi mhm. ndaxte liggéeyante bi metti na mm-hmm. defante yu bon yi metti na mm-hmm. ku nekk yaa ngi gas du suul ña nga bokkal di liggéey mm-hmm. say doomu bàyyi ña nga bokkal ndey ak bàyyi kànti maanaam gasante suulante yàqante bi fa bari lan ngay may askan loo xam ne dinañ ko mën a jariñoo kii toog seetaan dina ko mën a def fa mu dem su ko mënta def mu dem ñu defal ko ko waa léegi xam nga fi ne nii pour bala may agsi foofu waaw xam nga xaar comme nii nga listixaaral nit ni ko dinaa la fanaanoo bu subaa xëyal woo ma nangam nangam ñu bari dañuy nelaw fanaanoo ñu kenn barke Cheikh Ahmadou Bamba bi ma yaakaar rawal rawal man sama sama liste listixaar mi ngi mois de juillet fi ne nga xamante ne ku wootee duma la jël maanaam boo bëggee nag nga wax ñaanal defal lii nangam nangam mën naa laa ñaanal wala defal nangam ak nangam. waaye listixaaral ma mois de juillet jeexul waaye foofu la foofu la toll. léegi nag ndax boo bëggee. fukki nit wala ñaar fukki nit woo woowandoo la mm. kenn ku ci ne nga bëgg koo jox àq ja nga xamante ni moom nga yor ci listixaar gi bu boobaa mu demee mu mu am mu am ay jafe-jafe soo amee soxna doo fanaanoo ndax ba pare listixaar dafa listixaar dafa dafa dafa dafa garaaw la sàmb waaw listixaar dafa garaaw ndax léeg nit ki listixaar ñu won ko lu leer mm. waaye interprétation lañ ko won la dul xam waaw ñu ko lu leer. waaw waaye interprétation bay ba tax. Mm. mu mën a mu mën a mu mën a tekki loola du ko xam. xam nga nee la boo géntee yéeg ci fas soxna la. Mm-hmm. dañ koy wax. Mm-hmm. mais jamono jooja fas dafa amoon mais li ko remplacé mooy oto. soo géntee yéeg ci oto. waaw. nu àddunay gën a demee sëy la benn mu jege la. wala mu nekk yow mi nga xamante ne yaa ko def wala nga. xam waaw gént gént nekk kon ci oto bu bees di ko dawal nag. sëy la mooy seet bu bees rek. seet bu bees ci ku góor kem ku jigéen ki Samb euh, euh, bàyyi yow laay waxal de kii waxu mag moom <laughs> ma man sama nga baal ma maa ngi nuyu bu baax a baax firi gént mhm. euh, oustaz Ba mhm. ndax moom itam day nit ku baax ko yàlla baaxal mhm. dinañ ko si sax woo mu àggali la nga xam ne tàmbali nga ko macha allah muy léegi yaa ngi ci waaw kon yaa ngi ci fas dañ daan gént ñu ne sëy la waaye jamono yi ñu toll fas wàññeeku na oto fi ne aywa bismillah ndax amoon na jamono photo yi ñu naan def karaj nii ba pare génne génne flash bi moo amoon. dëgg la mais léegi téléphone yi dañuy foto dañuy caméra dañuy def lépp. da am télé sax léegi sa biir kër. waaw. ah waaw est-ce que kon photo photo bu njëkk ba ak photo bu léegi bi bokkuñu. wuute na wuute na. waaw léegi nag noonu noonu la noonu la adduna mel maanaam mbir yi dañuy changer dañuy dox di changer. Mm-hmm. loolu loolu moom moo ci nekk. li nga wax nag pour ma revenir ci yow muy wàllu njibar nga xamante ne nii ki nga xam dañ koo liggéey. Mm. ko ne dañ koo liggéey. ndoy baan maay joxe loo xamante ne nii ku yàlla bind du toog joxe ko ndax lu tax hmm. ña ko yor xaalis bu baree baree bari lañ ci laaj pour defal la ko te boo ko xasee ba sangoo fépp lépp loola topp moo xam cet la moo xam rab la moo xam liggéey la lu mën a doon boo ko sangoo mu deñ hmm. da bind xul a'uuzu bi rabbil falax min sharri maa xalax hmm. foofu ngay yem léegi nag arafu abaja day ñaar fukk la ak juroom ñet mhm. léegi boo bindee xul a'uuzu bi rabbil falax min sharri maa xalax da ngay def ben alif. Mhm. demat bindaat xul a'uuzu bi rabbil falah min sharri maa xalax def ba ñaar yoon ndax lettre numérique bi valeur numérique am 2 la. nga demat qur'an a'uuzu bi rabbil falax min sharri maa xalax nga bind jiim ñet yoon. non nga koy topé ba ci Chine ben ñaar ñet ñent ba. ba ci Chine bi 1000 lay doon manam lettre bu nek amna lim bu mu japp manam alif ba jim dal ha wa za kha ta ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka la ma na sa ha fa da kha ra e, e, sa ka la ma na sa ha fa da kha muy 10 20 30 40 50 60 70 80 90 léegi nag yeneen yi ci topp téeméer téeméer téeméer nga yokk xaaf cent ra deux cent siin su wow trois cent noonu nga koy toppee ba ci siin su tooy ba muy mille mu mat waaw nga xamante ne nii léegi araf boo ci bind rek da nga koy bind limam gannaaw bi nga bindee xul a'uuzu bi rabbil falax min sharri maa xalax foofu rek ngay yem boo paree nag nga nga nga def ko ci ci ci siwo def ci xorom rek nga sangoo ko lépp lu la toppoon day day day day dañ dalay baax d'accord macha allah loolu léegi nag gannaaw yow da nga ñëw fii. Mhm. Samb mhm. da ngay nekk xaritu Eva Traoré <laughs> doo nekk xaritu Mia doo nekk xaritu Mami Ndiaye mhm. man daal dama lay dolli ci loo ba ma am. macha allah lu yàlla xam <laughs> ñi bawal ma leen. <laughs> Mia yuuxu na ca kaw nee ak Mia. benn yoon nga koy sangoo. benn yoon nga koy sangoo. mu daal di deñ boo boo bindee tamit bu la neexee nga bind juróom-ñeenti tabati yaddaa. nga wut xasu xay mii. nga boole kook moom sangoo ko. lu luñ la def ci liggéey mu deñ juróom-ñeenti tabatiyal juróom-ñeenti tabatiyal waaw. Sëñ Tuubaa daa bind ni dafa sar sarral jinni wal unaasi bi suurati falaxi suma naasi bu ñu ne xul aonzu bi rabbil falax maanaam charri yooyu. Mm. juróomi charri la. قل أعوذ برب الفلاح من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقع من شر النفاسات في نقدي ومن شر حاسد إذا حسد كن ينت ينت شر ينجف غنيو كي ناسي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس كن لي بو جيلي بن شر بي ان ينت شر يله موي جوروم سنتو با دام فم كو تنك radiyallahu anhu ñu dalal ñu dalal te te xam nga li ma ci ne ña mel ni ñoom Eva Tra nga xam ne jànguñu waaye wax ji dafa leer naññ masha allah du ñu réer mhm. ñu dalal ki ci ligne bi ba noppi allo allo allo madame ndax amul kuy yër ñu bàyyi ko mu dugg mhm. aywa bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci plateau bi yéen ñi toog ñëpp. man ki may woo nii sama cousin la. maa ngi tudd Umul. ndeysaan. ndeysaan. Umul ni Ngom. Ngom Ngom. nekk ku yàlla baaxal macha allah ku bëgg mbokkam. tabaarakallah. ku fonk ay mbokkam. man maa ngi woote fii France. Euh, macha allah daf ma mës a jàppale. est-ce que ndeysaan xeebul ay mbokkam jamais dafa ay mbokkam. Hmm. macha allah man moom <laughs> macha allah à part samay waajur ak sunu borom samay waajur euh, moom sama sutura laa ko sa sutura. yàlla na sutura bi yàgg sa loxo waaye ndeysaan dama dama accouché bu am 5 bu am. macha allah musul am.

di ko def ci ndox. ñu di ko naan. Mm-hmm. incha allahu rabbi dinañ jub. ba pare juboo. ba pare dañuy juboo bu fekkee ni danga bëgg ñu juboo nag wa nazaana maa fi suduri min xillin ngay bind juróom-ñaari yoon waaye da koy dugalante ci faatiha diggante aaya bu ne nga def fa wa nazaana <coughs> boo paree nag nga def ko ci ndox def ko ci cin la ñëpp di lekk buñ ko lekkee ñoom ñëpp dañuy juboo mm-hmm. parce que damaa gis damaa gis damaa gis kuñ ko digaloon mu ni dafa bëgg ay njabootam jubo mu defal ko njabootam waaye moom jëfandiwu ko ci njaboot gi rek la ko defal mm-hmm. waaye njaboot gi dañoo màgg mm-hmm. jubo ba di ko kóppaloo dëgg la dina eh, dina borom kër googu moom ma nettali lool de. Mm-hmm. moom moo ma ko nettali mun ma mm-hmm. sama njaboot fi mu ñoom. Mm-hmm. ñoom dañu ni ñu mel. dañuy dem ba nga xam ne ñoom dañuy def li ñuy def. lii daal mi ngi ci ku bëgg a jub. ba pare ba pare ba pare. ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim 66. góor borom kër goo xamante ni yaa ngi xëy heure boo xëyee nga def ko nga jàng ko juróom-ñaari yoon ci ndox. Mm. jox ko sax njaboot ñu di ko naan wallaahi azim dañuy jub mais loo xam ne nii tey jii góor bu ko jëfandikoo doo tële mukk mukk mukk ñaan googu moom la góor ñëpp yi xaar loo xam ni tële moom doo ko def tële tële tële aaya bi ñuy wax awkal lazi marra wax ko ca kaw awkal lazi marra marra Babacar bindal ngay bind juróom-ñaari yoon aaya bi yëpp ngay bind ah, juróom-ñaari yoon nañ bind <laughs> tële kat moom moom moom d'accord waaw gannaaw bi nga bindee gannaaw bi nga bindee faatixatul kitab benn yoon awkal ah. lazi marra marra nga bind ko deux cent fois deux cent fois déedéet awkal lazi marra nga bind ko juróom-ñaari yoon ah. innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun ah. nga bind ko juróom-ñaari yoon fa ahinuni bi xuwa nga bind ko deux cent fois waaw boo paree nga boole ko yàpp nagu góor nga togg ko supp Ah? def ci gerte nooflaay waaw di ko di ko di ko di ko lekk ko naan naan ñeex mi waaw wallaahi azim hmm. da nga am doole xale bu am ñaar fukki at ak juróom ak ak déggal déggal li Babacar aw kalazi mar aw aw kalazi mar aaya bind <coughs> mhm. juróom ñaar bind innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu kon kun fayakun juróom ñaar mhm. bind fa axlu noonu bi xuwa deux cent boo paree nga raxas lépp def ko saafara wut na xam na yàpp nagu góor mhm. nga togg ko boole ci noflaayu gerte bii nii nga def ko ci. Mm. boo paree lekk ndawal gi naan ñaax mi incha allahu rabbi da am kàttanu xale bu am ñaar fukki at ak juróom. ca ba jamono yi baax nag. waaw waaw ndax jamono ji fi ne wàllu wàllu wàllu tële. Mm. dafa bari ndax xale yi boo gisee daanaka ñëpp a tële ndax man li ma ciy joxe ci garab kenn xamul nu mu waaye koo ko xase ba jox rek jeex na. Euh, sëñ Mouhamed lu waral xétu télé bi nga xamné ne dañu ko remarqué légui mhm. mu bare foogu leen ne foo bu bare bi la. waaye manam teel a xam. Mhm. sexualité tel ko découvrir sañ ko ñëmé ko. Mhm. waaye loolu loolu liko ah. gëna gaaw fi né wayjur wu né waaw sa bu sa doom juddoo. waaw xunut gi la la doon bëgg laaj. manam ñëwal. sa bëkk né da fo manam manam manam xam-xam mom boy jangalé tuddal lépp rek. waaw bu baax. manam sexu jigéen ak sexu goor bu ndaw bo xamanteni mi ngi dogu a juddu du sobe. nga tari sa anzalnaahu tifli ca wallaahi al azim du mooy yàlla ba keroog muy màgg. inna anzalnaahu ci jamono ji mu juddoo. bu fekkee ni nag koo xamante ne da di ko def wala benn yoon. rek nga koy def ci jamono ji mu juddoo nga ñëw tiim ko rek boo ko defee rek jeex na. bu fekkee nag nit koo xamante ne da ngaa bañ sa njaboot mooy. waaw bindal xunóot. waaw benn bi nga maas ko benn bi doo ko maas benn bi nga tàqale araf yi. Mm-hmm. moom xunóot. boo paree nga jël ko nga def ko ci nga jënd ay ay ay tubay tubay yu ndaw yu bees nga def ko ci biir nga jox ko ko mu sol ko ba mu wow boo woowee nag après ba summi ko bu ko summee hmm. nga jël le nga denc insha allahu rabbi xale boobu ku dul boroom këram du ko téye macha allah bu dee bu dee jigéen la nag hmm. bu dee góor la nag du mooy boromam ba keroog muy am borom kër ba ba keroog muy am soxna nga xamante ni yooyu yu baree bari la yoo xamante ne ni nit ki mën na koo def digganteem ak jigéen mënu koo def bu jëkkëram ah kay jigéen mën naa def jëkkëram loo xamante ne ni lu koy def noonu du may loolu ñemewu ma koo tudd ci télé bi ah, waaw waaw waaw góor it mën naa def loo xamante ne ni euh, soxnaam ku ko tiim dootoo nekk góor hmm. boobu moom ñetti tabat ya daa rek ngay bind nga naan ko ànd ak moom jamono ji ngay ànd ak moom rek nga ko nga koy nga koy nga koy naan insha allahu bi boo xasee ba ba ba ba joteeg moom képp ku joteeteeg moom dootoo nekk léegi léegi léegi léegi sëñ bi sëñ bi yaa ngi par par bul joxe bu jigéen bi de bul joxe bu jigéen bi bu joxe bu jël jigéen bul joxe bu baal noonu. kon Alioune Diagne ngi dem ca suuf. waa lii lii mas nañ ko. paas nit ñu laaj leneen. mani mani defar naaj defar naaj. Alioune Diagne moom nee na mukk mukk mukk. soo joxee bu jigéen mhm. dañ koy def ku jigéen ñi am wujj. Mhm. dañ koy def sooy dem fee. takk mhm. xala déedéet déet ah. wujj dafay fekk farata dugg na. ko non non non bu joxe bu jigéen yàlla daa civilisé de bu joxe bu joxe bu jigéen. takk xala. waaw ñu bari dañ leen takk xalaa garaaw fi ne am na fi ne ñi ñi ci dem di sonn lépp ñu takk leen. yaa ngay ree alam tara kayfa bi ngay bind ubbi juróom-ñeenti miim yi dugal ci juróom-ñeenti tabaaraka yi maanaam ku dem ci jàngkatu alxuraan rek bu sell mu bindaloo ko nga boole ko juróom xeer tàngal ko ba mu tàng nga naan fa juróom-ñeenti yoon waaw daa am juróom yu ci ne benn yoon rek nga koy bind waaw mais am na juróom-ñeenti miim yu ci ne miim yi nag am na juróom-ñeenti tabaaraka yu nekk ci alxuraan tabaaraka bu ne nga bind nga dugal ko ci benn miim boo paree nag nga wut juróom-ñeenti xeer tàngal ko ba mu tàng mu fay fay ko ci biir saafara si nga naan ci ñetti góor sango ko mu daal dem ci si wareef bi wareef bi mais madame Ndour su ma xamoon dama koy daal def ay CD di ko jaay eh, suñu émission <laughs> tey bii ah, daal di koy def CD rek di ko jaay ku cliqué rek fay. Mm-hmm. waaw macha ah, allah. Ah, lool loolu loolu day day day dindi day dindi takk xala. Mm. waaye képp koo xamante ne ni bañ nga ñu takk la xala. waaw waaw. nga xamante ne ku la ko def du jàpp. Mm-hmm. waaw yaa xafiisu ngay bind junni yoon waaw yaa xafiisu ngay bind junni yoon boo ko bindee mm-hmm. nga wut dëju sump yii mm-hmm. téeméer ak fukk ak benn sump mel waaw daju ak ak xeer daju daju xeer yi téeméer ak fukk ak benn nga sangoo ko xeeru tali yi waaw nga sangoo ko ñetti fan rek te boo koy sangoo bu la neexee nga wut xeer bu dëgër nga taxaw ci nga sangoo ko bu soobee yàlla ku yàlla bind mënu laa takk xala bo waaw ku tëju nag ku tëju du ma gannaaw bi nga xamante ne nii. nee banque daal nga banque loo lijjanti mu dëgg nga banque. waaw ah, oustaz bisir la ci boobu. <laughs> banque waaw. fer nga rab waaw waaw. <laughs> tëju waaw. maanaam na bind fatiha diggante aaya fatiha bu ne mu def ci alam na sarax. Mhm. teg na mhm. beneen fatiha. Mhm. diggante aaya fatiha bu ne mu def ci izaa jaa nasrullaahi ba ba ba mu jeex. mu teg na mu bindaat beneen fatiha mm-hmm. bind euh, bind euh, rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin bu paree mu boole yépp def ci parfum bu neex di ko sangoo ak jar bala muy mat bala muy mat une semaine insha allahu rabbi sunu borom dana ko dana ko dindil umu googu dina ubbeeku waaw dana ubbeeku mm. loolu loolu loolu day day day mais dañu gis tamit gars yi mm-hmm. yenn saa yi nga dégg ñu ni euh, tali bi daa am yi jënne accident yeeg yooyu mm-hmm. ñu bari dañuy aar oto gàllaaju oto. allo salaamaaleykum assurance baal baal ma ma jël téléphone. mbokk mi bisimilah yaa ngi. ci maaleykum Eva naam. ñu ngi sant yàlla bu baax. baa yaa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah. nuyu naa leen nuyu Ndoye Bane. ngi ziar bu baax fay ci plateau bi. di kontaan ci émission bi bu baax a baax. Mm. allo allo jërëjëf allo waaw di ko ci émission bi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf waaw di nuyu kilifa bi ngeen invité. Mhm. di ko wax ne kii bi am na solo trop trop trop. bu baax bu baax. waaw ñun ñëpp a ngi koy déglu. Mhm. waaw di ko laaj rek. Mhm. Euh, numéro bi ndax dina mën a bàyyi numéro téléphone am ak adresse am. Mhm. soxla daal waaw. waaw waaw waaw. balaa muy dem waaw. balaa muy dem danaa ko ko joxe loo bu soobee yàlla. waaw di ko laaj tamit ku am ay àndandoo daal ay faru rab. wala ku ndeysaan. ak loolu waaw fekkee mën na ci mën nañ cee dimbali daal. dëgg la dëgg la. ak numéro ak adresse am. ndeysaan. maa ngi jaaree ndoy baan bu baax a baax a baax. di déglu ay kiiwam par guddi ci rajo bi maa ngi koy déglu moom tamit. Ndoy Buzz moom mooy Ndoy Buzz. rajo ba guddi gi daa xumb de. rajo ba moom moom foofu moom. macha allah amul censure lu ne. dégg nga. waaw tali bi. waaw gàllaaju oto assurance bu nga xam ne daal sécurité. Mhm. Euh, accident moom mënut ñàkk mais. Mhm. Euh, am na ci yoo xam ne dañuy bëgg. souvent mhm. ñu nekk dem voyage dem ci jàmm ñëw ci jàmm. waaw gis nga fi ne boo boo bindee suuratu yaasin. waaw. nga boole ko gerte kemb yi. waaw juróom-ñeenti doomu gerte kemb. Mhm. nga def ko ab téere takk ko ci oto bi wala nga dugal ko fu mu mën a nekk ci oto bi. incha allahu rabbi oto boobu di nga ko ràppal ràppalaat ko ràppalaat ko. Mhm. bu dee yaa ngi dugg ci oto di tukki. Mhm. comme lu mel ni tey màggal gi màggalu Kazu Rajab nga def faatiha boo duggee ci biir oto bi jàng ñeenti ina anzalnaahu incha allahu rabbi di nga yéeg ci oto bi ak jàmm di nga ko wàcc ak jàmm. te am na fu ñu wax ni boo waxee bismillahi rahmaani rahim yéeg ci oto soo toogee nga ne alhamdulilahi rabbil alamin mm. mboolem paa bu oto bi daw dañ la koy bindal ay tuyaaba ba keroog ngay wàcc. Ah. waaw. bu ñu wax rek lépp loo xam ne day jariñ nit ki fii waaye nañuy wax liy jariñ tamit nit ki fële. maa la ko wax waaw. dina am benn benn salaatu boo xamante ni day xaw a gudd tuuti waaye dinaa ko maye ci sama page Facebook. nga xam képp ku ci dugg xol ko soldatu Serigne Touba Samb. suma ma soldatu Serigne Touba Samb. waaw rek dana la dang ko gis. ju bobu boko bo xasse ba def ba def salatu gogou mm. ñetti téeméeri yoon ak juroom benn fukk ci ko aji makka mm. suñu borom dina la bindal yool bobu ñetti téeméer ak juroom benn fukk ci ko xamanteni ni saraxena wurus suñu borom dina ko bindal bindal yool woowu ñetti téeméeri yoon ak juroom benn fukk ci ko xamanteni ni khatmuna alquran jang nako ci kamilu alquran mm. ñetti téeméer ak juroom benn fukk. ci nit ñoo xam dañoo am problème kenn ku ci nekk nga ñëw taxawal ko ci problème ba problème ba sotti ndax yàlla nee na boo taxawalee ci nit ci problème moo xam sotti na moo xam sottiwul bu bis pencee dinaa la taxawal ci sa njàqare cey sunu borom kon loolu moom moo tax ndimbal infaax yooyu am <coughs> ak xeetu baax baax baax baax dafa baax dafa bari dafa bari dafa rafet xanaa xamoo ne fi ne liy maye liy maye wërsëg liggéey moo nekk sixième position est-ce que waaw nga mm. moo nekk sixième position liggéey nangoo liggéey waaw macha allah nee na bi ci njëkk mooy taqwallaahi ragal yàlla wa man yattaqillaaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min xaysi laa yaxtasib ku ragal yàlla yàlla ubbil ko jox ko wërsëg woo xamante ni kenn du xam lu mu toll may ko martaba benn bi mooy wakkirlu ci yàlla wa man yatawakkal alallaahi fa huwa hasbuhu képp ko wakkirlu ci yàlla rek yaay nekk suñu borom nekk sab sàmm beneen bi mooy sadaxatu di saraxe saraxe waxoon naa léegi li muy jariñ mhm. benn benn benn doomu mbiskit boo génnee rek juróom-ñaar fukki balaa yu la waroon a dal suñu borom dana la ko fegal beneen bi muy asalaatu di julli mhm. ak di digle sa njaboot ñu julli alxuraan moo ne yàlla moo ne boo dee julli di digle sa njaboot di julli da ngay ubbeeku naafila yi nag ak naafila yi waaw kay ndax naafila loo koy def rek di gën a jege sa borom nit ki dina nekk ci la di nekk ci naafi la ba bu waxee mel ni yàlla moo wax bu jëfee mel ni yàlla moo jëf ndax jege bu muy jege borom. damay dégg faral dégg faral ñu ñu naan. Euh, xamoon ni diw li ko ndeyam boote. waaw am na des fois nit dem ci àll bi. Mhm. dem jéem a euh, liggéey nit. Mhm. fam jaare fa sànq yàqu ba faw mhm. loolu lu lu lu. am na allo maaleykum salaam. waaleykum salaam. rahmatullah ñu ngi leen di fay bu baax. di nuyu Iglesia Agua. Que... ak sëñ Samb moom Mohamed. Mohamed Samb. sama mbokk taalibe sama mbokk Daara. Mm. tabarakallah. man Cheikh Baara Ndiaye lañ may wooyee. bu baax ndeysaan maa ngi nuyu bu baax a baax. Ndiaye. xam naa nag temps bi lay bañ a jël. di nuyu bu baax sëñ Goy Baan moom maa ngi ko doon déglu léegi ci ci ci xalaat moom man moom auditeuru xalaat laa. dëgg waaw xalaasu tey moom daa doy waar moom. <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax daanaka fajar bu nekk moom maa ngi lay déglu. toujours moom yàgg nga ma abaa naa ngi leen di nuyu joo xam ne. Mm-hmm. Euh, man yàlla dogal na xëy na miinu ma ko lool ndax buñ buñ ma fay gis gën bëriwul. Mm-hmm. dëgg la waaye nag miin na ay jataayam kom di ko déglu ca xam-xam. ak tamit xam ay jëfam ndax ñoo bokk teen bu ñuy roote ndax ñoo bokk sëñ Tuubaa hmm. waaye daal lenn daal laa xam ne mën naa koo seere ci moom mooy nit ku dëggu la hmm. hmm. macha allah nit ku dëggu la koo xam ne lépp lu mu wax ci àdduna moom mën naa cee tuur kaamin la waaw loolu moom xam naa xam naa xam naa ko ci moom yaakaar naa itam amul lenn lu ñu war a poussé lu tax ñuy woote di ko waxal ci ab télé àdduna di ñu dégg loo xam ne xamuñu ko. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw te yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nag am na lu mu waxoon ci dëkk. mooy bañ ko laajee ndax julit dana sàcc mu ne amaana ndax julit dana njaaloo mu ne amaana waaye bañ ko ne ndax julit dana fa dana jullit du fen dëgg moom nag seedal naa ne moom nit nitu dëgg la moom nitu dëgg macha allah macha allah te loolu moom xëy na moom moom moom moom bu ma ko ko waxalee man ku xam xam ko dina ko gëm. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ku baax la sëñ Cheikh Bara Ndiaye moom ku baax la ñu koy nuyu bu baax a baax a baax Cheikh Bara waaw Cheikh Bara Ndiaye Cheikh mu nekk nit ku baax dama daan gis bu njëkk euh, sunu papa yi wala sunu maam yi dañ daan yoon ñeenti soxna ñu nekk ci biir kër gi te dara du yëngu léegi soo soo ci yoree benn rek mu lay bëgg a rey mag ñi daa am lu ñu daan làmboo lu ñu amul ñun wala lan la. am na leneen lu gën a garaaw. mooy am na ci mag ñoo xam ne saa soo duggaan seen kër dootoo nekk góor ba keroog ngay génn. mbaadu bideel bi ci digg damaa ragal damaa ragal émission bi rek moo kon moo tax waaye kon ma maye ñëpp nga xamante ne heure boo ko defee ci buntu kër. waaw képp ku fa dugg ngir caay doo nekk góor ba keroog ngay génn. lu wér a wér la. dañ daan bokk benn ndaa bu ñuy naan di bokk benn ndaan ndaa bu ñuy sangoo am na lu ñuy bind def ko ca képp ku ci naan doo mën a basa moroom doo mën a muñ sa morom da ngeen di bëggante macha allah loolu am na ah booba nag dañ daan bokk lu ñu daan naan léegi nii bokk lu ñuy naan bokk lu ñuy naan bokk lu ñuy lekk am na loo xamante ne nii fi ne borom kër bu ko def ci ceeb moom nag mën na caa bañ a lekk bu paree def ko jox ko ñu sóor ko lekk ñëpp lekk waa kër gi ñëpp dinañ ko déggal te fi ne li gën a métti ci àdduna mooy nekk ci kër amoo kàddu amoo sa kàddu te dafa bari ak kay dëgg nga xamante ni fi ne lu waa lu borom kër gi wax dëgg ñu ne ko ñu ne dina wax rek waaye duñ ko jëfee te am na yoo xamante ne boo ko defee lu borom kër gi wax ñëpp jaar ci macha allah moo tax paa yi daan am ñeent ñëpp ni nem ñëpp ni nem léegi gars yi yor benn rek benn mu mu benn mu la jël mu mu la jël la wëcc te yooyu yëpp ay ñaan la ay tegtal la yoo xamante ni nii mais ñii est jigéen ñi léegi neex na ñoo jàpp ñii mm-hmm. foo dem so da ngay dem ñoom it dañuy dem de non foo mën a dem ci àdduna ñii ñaan eh, man tudduma kenn de foo mën a dem ci àdduna waaw ki gën ci ki gën ci lu yàlla bind muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah. bi nga xamante ne nii saahir yi fexeloon nañ ko dañ koo jàppoon mm-hmm. yàlla naan ko wallaahu yaxsimuka mina naas nga xamante ne suñu borom moo ko musal ci loolu mboolem yonent yi ñi fi jaaroon kenn ku ci nekk dangay dem ba ngay def boo ko defee mm. ñu jiñ ko ak njabar naa ni kii daa yor ak njabar gu rëy mm. wala nangam ak nangam ku weddi da ngay xool Moussa ak Firawna xaala mm-hmm. Moussa maa jiitu bihi sihar inna laaha sayubtiluhu inna laaha laa yuslihu amala mufsidin asalaamaaleykum macha allah na ngeen def ça va <coughs> jàmm rek asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. damaa bëgg woote wala numéro ki sant Samb wax laa bëggoon a jot. sëñ Mouhamed Samb fu mu ne nii maay maay bëkk néegam. ah maay bëkk ma jox la sama bi nga bindal ma ko kon. aywa waay aywa aywa. moom fu mu dëkk xanaa dañu ah, boo joxeem. waaw 77. 70 waaw fu ne na njaayeen yépp jël jël jël bik bu ko defee ñu sant Diop. 77. 809. 809. 47 95. 47 95. 77 809 47 95 bu ngeen wootee jëlul ko message. Mhm. ndax ku melni mom bëgg ñepp nak da fay jafé say dana bax bu nit message, bàyyi la sëñ bi message bu ko defee mu mun a toog. bu mhm. toogee daal mhm. tontu la du rek. dëgg la waaw oh, waaw mais damay gis ci internet bi gars yi dem Dubaï. Mhm. indi fi bato jaaro. te naan jaaroo xaatimu Suleymaan. peut-être lu ne wax jaaro bi soo ko takkee ci ci internet bi lañ koy dugal kat. naan dañ ko fay jaay. waaye yooyu jaaro nu mu demee moom. maanaam jaaro xam nga kenn ku ci ne ak sa xam-xam bi la yàlla may. da tey jii mënumaa toog fii weddi xaatimu xaatimu Suleymaanu jàmbur. wala nangam ak nangam waaye Suleymaan la yàlla mayoon loolu. te dafa ñaanon rabbi niko rabbi habli mulkan laa yanbahi li ahadin min bahdiya innaka antal wahhab li nguur gi may may dal bu ko mayeti kenen ci sama ginnaw man budé jaaro amna ci bo xamanteni gis nga bii ma takk rajab bu ne wéru rajab bi bu taxawee alxamis bi ci njëkk nga koy defar bu wéso wésna mais sa way nga may defaloo ma ci des mais doonul lo xamanteni dama koy asalo wala may nangam ak nangam ak nangam ndax du du ay tiaxan loolu lolu nak moy moy moy moy xam-xam may du caagin da ngay dem nga deg jaaro nga dem jënd tonu jaaro nga ñew ya xam def nga ci galaj wala defo ci galaj kep ko xam ne def nga euh, lu bax am lu bax kep ko xam def nga safan am safan ba mais lepp loy jaay nit nangu na nek lu wir lo xamanteni ni dal bu ko jëfëndiko da ngay da ngay da ngay da ngay am da ngay am ki dëkk bi dafa am ño xamanteni yalla yàlla da leen dimbali ñom ñëpp mëna ñaan Hmm. man am naa ci ñu xaax ñoo xamante ne ni ay xarit yu baax lañ ma leen di nuyu de passage ku mel ni sëñ Xaadim Gueye Ijaaba sëriñ Mor Jenn Jinne sëriñ Matar Jenn solution sëriñ euh, Abdoulaye Diop Kokki sëñ Massamba Ndiaye da ngeen def da ngeen def seen kuréel ñoo ñëpp fi ne nii léeg kilifa gu mag a mag soxla ma man du ma ñaan man kese damay jékki-jékki jël leen ñoom ñëpp ñu dem xal xalwa liggéey liggéey bu wóor boo xamante ne fatu jug dem waaw fatu xalwa dóor ay fan nga xamante ne bu ko bu ñu ko ay fan rek mu daal di mu daal a soo bëggoon tey ji Macky boole la ci kii bi dégg nit ki sëñ Mouhamed may ma ma jël ci ligne bi de sa law du ma fi xool ngay nekk ministre de ku nekk ak sa problème rek salaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku la Tata Eva. man la de waaw. waaw mën nga def maa ngi ziar. maa ngi lay delloo ziara bu wér. ñu ñu baax macha allah. <laughs> rawatina nag yaru lool baax lool. yàgg naa di seetaan wareef nag mais c'est la première fois ma woote dugg. Mhm. parce que ki ngeen invité dafa nekk koo xamante daal sori lool ci man. ci mbokk du ci dara mais yàlla boole maag moom mu féete ma fu nekk muy jëmm ju baax invité ngeen tata Eva baax su doon sama sago damay wax tur bi mais dama koy leb beneen dëgg la dëgg la macha allah moo tax may wax rek ku yóbboo teey ndax yàlla moom dafa am ay waayam mm-hmm. bu nu ñaanee yàlla yàlla nekkal ko bés bu ne ma wax ko fi macha allah mm-hmm. Euh, sëñ bi am na koo xam ne ni ngi laajte nee na mhm. nga dimbali ko baaxe ko mhm. loo xam ne daal dana tax mu bàyyi cigarette bàyyi cigarette nee na yaakaar na la ci lool lool lool maanaam day bind xunuut lay bind xunuut da koy bind ñetti yoon mhm. bind ihdina siraatal mustaqima 66 mhm. boole koog fexe na fexe ba xam fu wàlli yu tëdd mhm. suufu bàmmeel bi mu tibb ca boole koog moom di ko naan insha allahu rabbi dina mais xunut dafa dafay bind ndoy baan may ko mu xunut na bind xunóot ñetti yoon ihdina siraatal mustaqima mu bind ko 66 waaw boole koog suufu bàmmeelu wàlli yu fu wàlli yu tëdd mu mu jëf mu def ko ci biir euh, saafara si di ko naan bu xëyee di ci naan buy tëdd di ci naan wala saa su demee ba xelam nekk ci tux rek mu dew naan ci incha allahu rabbi dana ko bàyyi moo xam tux la moo xam sàngara la moo xam njaaloo la lu mu ci mën a doon rek da koy bàyyi mais xunut xunut dafa am waxtu wuñ koy bind déedéet amul benn waxtu wuñ koy bind dégg ñu naan diggante timis ak gée am na ñoo xamante ni dañoo préféré bàyyi ba mu lëndëm ñu bind ko ndax lan lañ ciy def lu lëndëm mën naa nekk loola. d'accord maanaam xam-xam moo. yaatu ça ci la nga ca naat. xam-xam moo nekk géej. macha allah ndax fi ne nii suñ ci waa ne ne képp ku am xam-xam te doo ko joxe. bala ngay dee yàlla dina la ci mbugal. képp ku am xam-xam. te doo ko joxe. buy jariñ bala ngay dee yàlla dina la ci mbugal mais élèves yi ñiy jàng examen yu jub si ñii di def bac ñii di def. ndax soxna Miane Ndour nee na ñu xamal nañ ne waxtu bi. Euh, dab na nu nun daal sañ bi. doyul nu de yàlla xam na ko. ah xanaa jox ko jéem koo jox waa Ngonal rek xool ba xam. wala wala mu ñëwaat. waaw ba tey ba tey parce que yu mel nii dana ko soxla macha allah. Mm, mm, mm, am na loo doon laajte ndoy baal. waa élèves yi élèves yi. waaw élèves yi xam nga su examen jeex yooyu ndeysaan waaye dama nañ jàng d'abord parce que tey jii. soo jàngul moom lu la ñaanal ñaanal mooy lool mm. mais tey ji élèves yi ci bari dañuy soxla ñaan ak comme ay kiis ak ñoom seen nit ñi ci bari dañuy bëgg pro dañuy parents yi sax dañuy fàtte seen seen bopp mm-hmm. pour jublu ci njaboot gi lu leen aar mm-hmm. sàccum xale yi xale yi njàng ma am na ñoo xam seen xel yi ubbeekul bëgg nañ mais amuñu daal bu sa njaboot di génn di jàngi waa dajale leen ñoom ñëpp yaa xam man nga xam suuna xaaf wala mënoo ko waaye bu fekkee ne xam suuna xaaf bi mën boo ko mënee nga jaajale leen ñoom ñëpp nga nga nga ñaanal leen ñu dem incha allah dinañ dem dinañ dellu si kenn du leen kar mais ñi koy takk nag ba mën nañ koo bindal nit tamit mu takk ko moom xam suuna xaaf am na tamit bu dee koo xamante ne day jàng ah, bëgg ëppul ci gone maanaam yooyu yooyu sëñ eh, maanaam kuy jàng nga xamante ne daa bëgg di am xam-xam mhm. am na kiis yoo xam ne boo ko defalee am na boo xam bopp xar nga koy booleel mu lekk ko maanaam loo bañ mu mokkal ko bu mu ko gis kiis kiis lu dul boo xamante ni am na looy bind boole ko bopp xar mi lépp looy bañ xale bi mokkal ko bul ko bind bul bu mu ko gis bu ko gisee dana ko mokkal am na ci am na ci ay kiis waaye dinaa maye benn boo xamante ne nii palaatu verre yi bu mel nii ngay jël bu weex nga bind ci faatixa waaw raxas ko mm. bisu bis bu la neex mën nga koo bind boo ko raxasee def ci lem suñu xëyee fajar rek nga jox leen ko ñu naan ko insha allahu rabbi seen xel day ubbeeku waaw mais assiette transparent comme bii ah, nga bind waaw nga bind ci faatixa waaw nga bind ci faatixa rek raxas ko boo ko raxasee insha allahu rabbi bu ko naanee fajar gi bu ñu xëyee nga def ci lem jox leen ñu naan ko insha allahu rabbi ñoom ñëpp bu soobee yàlla sunu borom dana leen dimbali ci xam waaw Euh, sëñ bi jërëjëf sëñ Mouhamed Samb mi ñu invité woon mbokk yi gis ngeen ko. Euh, waxtaan bi tey fii la woon xam-xam rek lañ ko teg macha allah. di ko nuyu di ko sargal bu baax a baax di nuyu itam borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi toog du ñu seetaan ñun bu doon suñu sago la bés bu nekk dañ leen di dalal ci émission bu ni mel ndax xam ngeen ne wareef bu ñu waxee wareef rek wareef mooy Sénégal ndax li xew Sénégal. xew ci àdduna bi moom la noo waxtaanee euh, kilifa gi dama lay bàyyi rek nga tàggatoo tàggatoo ba dul tàggatoo te wax yëgal ñëpp ne may bëkk néeg bi <laughs> ayo bismilla Samb waaw di la di la ñaanal nag suñu borom defal la tawféex jërëjëf Baye defal la wér amin a ku la xaar yàlla xaddi amin ndax yow njariñu askan wi nga sama xarit bii nag di di Ndoye Bane di ñaanal yàlla sunu borom yëkkati ko bu ñëpp seen ko waaye aar ko ba kenn da ko mën a amiin di nuyu nag sama xaritu bopp muy sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Aziz mu sëñ Baara nga xamante ne jàng ak jàngale ah. ak jaamu yàlla képp mooy mbiram di ko nuyu nuyu goo xamante ne nii ci sama xol laa ko jëlee. di di di sant ñëpp. di ziyaar ñëpp di di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxalaa wa barakaatuhu lépp lu ñu fi wax nag. képp ku ko jëfandikoo yàlla na nga ci dajeeg barke bi nga ci bëgg. ci barke Cheikhul Khadim. wasalaamaaleykum amiin amiin Ndoye Bane ñu ñu bàyyi la nga tàggatoo. macha allah côté rab yi rek lañ ko laajul mais ñëwee rek. xam nga réew mi moom waaw dinañ ko delloosiwaat ci plateau bi. lu xew ñu ne rab lu xew rek ñu ne rab. rab rab rab rab ju dul jeex